tay nak ñu dajé fi ci euh, centre culturel Maurice Guèye ci salle polyvalente bi pour euh, def suñu cérémonie d'ouverture euh, festival suñu première édition festival waxtan tru waxtan nak bu ngeen ko déggé batu wolof la comme ni ngeen ko déggé waxtan weccoo comme ni ñu ko baxo xam fi ci réew mu melni Sénégal ñu jël nak comme thème tru manam maanaam ndax dañoo gis ne adina bi bari na ay xeet yu fi am te tey boo xoolee xeet yu bari ñu ngi disparaître su may wax disparaître mooy ci seen dundin ak sen jëfin te dañoo gis ne ñun lu ci bari ci nañ doon dundé ñom war nañ ko mëna conserver parce que tay bo waxé dañ lay wax civilisation aduna fi la tollu nga def dara ñu ne la lii xewwi na nangam ba tax na tey euh, lu mel nonu mu ngi disparaître te ñom aussi amna nuñu nu ñu meloon am na nu daan aussi nuñu gisé won société bi te bari na ci euh, aussi lo xamné ñu ko doon dundé ci lo xamné lu positif la donc nous on s'est dit pourquoi pas nous avons aussi négatif Nous société bi et aussi c'est un réalisateur euh, chilien mu 30 euh, films de 26 épisodes euh, épisodes de 26 minutes Nous daf rencontrer films indi ko mais ñun ci festival bi 30 films lañ ci euh, festival bi du 12 juin au 14 juillet manam ñeenti semaine une semaine am euh, ci festival bi tey une cérémonie d'ouverture bi rek fi def mais activité yu ci ëpp mu ngi am ci zone notamment à Toubab Jalaaw yéni kaw yéni kaw bi nga xamné structure bi euh, mom bi mu Hervé nous ñu ñukay wax bat fofu la fofu am une école de musique bu fa nek aussi euh, accès laa nek fa diko gérer sa femme moom ngeen gis donc l'activité est si pour foofu lay xewé dina aussi ay formation yo xamné dina ci am dina am ay projection de films, euh, notamment des courts métrages ak euh, des longs métrages gis ngeen fi ay réalisateur tout à l'heure ci salle bi ñom aussi dinañ fa projeter seen film ay réalisateurs sénégalais comme aussi ay réalisateurs étrangers li ñu gëna focaliser aussi surtout c'est la formation des jeunes xalé yi nga xamanteni dañu am ay 6 ans 7 euh, ans 8 ans manam pour euh, nampatal len ci euh, métier cinéma yi quand on parle de cinéma nit ñi lu si ëpp jouer lañu gis ak filmer mais y a d'autres métiers comme le maquillage le costume donc lool yëpp dañ ci former xalé yi durant le long du festival en grosso modo dal lool moy activité yi nga xam da fay xew ci festival durant 4 semaines